Senegal, ñetti fane suñu doomi jangi wuñu ñetti fane tay leen xool leen Dakar nu mel comme Tabaski tay ndar ba ma dëkk tous les magasins sont fermés EDK ku ko mom sénégalais le EDK de Saint-Louis vient de saccager fan lañ jëm li lu ko fi jar ndax lan ndax ben nit ak sa bëgg-bëgg ku taxaw nga nga taakale ko né du bok mais ba dal na Khalifa Sall dal na Karim Wade tay dal na Ousmane Sonko sénégalais ñoo war tontu.